نفسي وديني ثم لي والولد ومسكني لك وديعة الأباد بركة سبرا سجا ساك يا خل سبرا ما مولاك خير الجزاء منا دارك أولاك بركة سبرا سجا ساك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 di ñaan Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootu sëriñ Touba gépp di ko ñaanalit Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp noonee lañ koy ñaanal Serigne Sidi Sarr xalifa Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mu yàgg fi lool ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Sarr gépp di ko ñaanalit Cheikh Ibrahima Khalil sar mi nga xamni tay mo tok toog mam maam Cheikh Serigne sar mu yag fu lol te and ak wer ak njabootu Cheikh Serigne sar gep ba li ñu bëgg liggéey seen mam Cheikh Serigne sar ñu am si lu kawé seen njort sëñ bi dama xawa bet ay mbir mom moom rek ndigal jëfé nee nañu nañu waxtaan tuuti waaye waxtaan wi dama koy jëme ci jéem a xamle jëmmam ji ndax it dafa jot àddina wërngal képp xam kan mooy Cheikh Saliou Sarr ca saaka ndax jot na nag ndax Sarr nëbbatu bi na nag daña war a xam ne yow yaay kan ni ma koy xamlee mooy tàmbalee ca kaw kii mooy Cheikh Saliou Sarr di bete bete di seex ñaari yoon di paaka ñaari boor. li ko waral mooy kii mooy ibnu Cheikh Serigne Sarr Cheikh Serigne Sarr ibnu maam Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne soo ñëwee ci wetu way jërëm wu jigéen way jërëm wu jigéen di leeru Cheikh Abdou Karim Touré kon dafa seex ñaari boor. dafa seex ci ëttub si Ibrahima Sarr ëlbatiku seex ci sëñ Abdou Karim Touré dinaa si ñëw kenn ku ci nekk ñu di dippee ko Cheikh Saliou Mbacké jox ko ko moo ko yar booy moo ko yeew lu nekk ci moom mën naa ni moo ko ci def te mu roy jikko yi bari ci moom dinaa ci ñëw di rakku sëriñ Basirou Sarr jaamu Serigne Touba tey sës ci moom rëkk jël léppam jibbal ko ko kooku it dinaa ci ñëwaat damay jàll fa mu jege woon kan mooy si Ibrahima Sarr Ndiagne ci lu gàtt rek ci ñaari mbir yi nga xam te ni moo gën a siiw benn bi mooy yónnante bu siiw ba mu defaloon Serigne Touba ba ñëpp gàntalee mu ne ko ma de ba mu yónnee ma dem ndax ñi la gàntaloon dañoo bëgg bañ ñu jël bind waaye moom booba ak taalibeem ak di ko yàlla may mu nekk ko mbàkke man soo ma yónnee ma dem ndax ab soxna bu ma doon yóbbu jëlee ko mbàkke kajoor yóbbu ko saalum mu yóbbu soxna si ba dellu si fas ba muy tegoon soxna ci dem ak dikk yéegu ci ngir warmaal doomu Serigne Touba. ba mu ñëwee ci rek sëriñ tuba tëgg way yooyee siiw mu jasaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka xayra jasaawu mu naa daareeka awlaaka xamal koy ne ka faxlan bi annaka indi soyda abadan wa zakkiri fukka fii duniyaa wa uxraaxa waaye mu digal ko ne ka faddum ala sidqi wal ixlaasi mu taytan fi sirri wa jëhri kaytan mu masaa yaaka jërëjëf kooku mooy si Ibrahima Sarr loolu donc bu ci jamoon day doy waye ku ñew Touba amna barab yoo xamanteni dañuy sàkku nga dem siar fa lolu buñ ne aynu rahmati di ndox moo xamante ku ci ñaan sa aaje faju mom mu def ci mandarga bu am solo gas ten ci ndiga Serigne Touba ba tay ji ni wa keur Cheikh Ibrahima rawati na wa keur Cheikh Serigne sar ñu wattu ten bi ñokay wattu ñokay sam si jamono ci Abdoulaye Mbacke si Mbasou sa jamu Serigne Touba jambar ja moo koy yeesal taaral ko ba tey jii mu mel ni mu mel kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye bokkoon ci mag ñi nga xamante ni ñoo njëkk a jébbalu ci sëñ mag bi gannaaw Cheikh Adama Gueye moom mooy ñaareel bi bu nga wàccee ci maam Cheikh Serigne Sarr bi wajuram bu góor ñu bëri xamul ni maam Cheikh Serigne Sarr mooy turandoo Serigne Touba bi njëkk ci kaw suuf Serigne Touba moo ko yar bokk na ci mag ñi nga xamante ni fekk nañ Serigne Touba gànnaar ci saa yi Serigne Touba ko tëral di ko yee di ko sëlëb ndoxam bu tedd ba ca gànnaar ci jëmmam jooje ba Cheikh ibraahima Sarr wàccee liggéey ci saa ba mu woowee njaboot gi ni li woole ni leen kan mo mokal bëyit yi nga xamanteni teug na ko seen wëju bu tedd wowe mom mam Cheikh Serigne Sall mo jónni mbacke man de man nako mu ne ko waxal ma deg ba mu waxe ba tuddu abadan mu ne ko taxawal bes bi tay ji mo taxal mu ànd seen wëy tedd abadan dom talibé xarit ba ci abi jàmba yi di leen teral fii ci kaw souf ba ngeen dem àllaaxira barsàq mu teral leen del siwaat àddina di taasaatu képp ku tax ci lansaar mbaa kuy xarit mbaa kuy soppe kon loolee ñu am xamuñ lu mu doon te njàmbaaw Cheikh Ibrahima Sa Njaañ moo ñu defal loolu kan mooy ku kuñ ko dippee kan du ko laajte Cheikh Saliou Mbacké ki nga xamante ni tey jii ndaw ñi suñu génération bi moom la ñu xam fekkewuñu suñu Fall lu fekkewuñu si Abdoulaye ba dañ koy dégg waaye tey ji mën naa ne tey jii nii lu bari soppeeku ci ndaw ñi si buñ bëggee Sëriñ Tuubaa ak yoon bi Cheikh Saliou Mbacké liggéey na ci lu bëree baree baree bëri moom mii bu lay wax fi mu diggante ma seex saa Saliou Mbacké da nga naan déedéet bëggoon na ko lool teg ko fu kawee lool di jëfanteeg moom lu bëri loo xam ne keneen du ko ñu bëri yëguñu ko xam kii toog boo ñëwee ci diggante mag jàmbaar bi Sëriñ Tuubaa ja nga xam ni mën naa ni képp ku fi toogal Sëriñ Tuubaa mi xalifa làqale sa ngërëm ba loolee tax ñu koy dàkkantelee Sëriñ Basiru Saar jaamu Sëriñ Tuubaa dundam gépp lan nekkutoon yitteem lu dul sàkku ngërëmal Sëriñ Tuubaa ñàkk caaxaan lool dëggu lool dëdduna àdduna lool loo ko masaan wax lu dul liggéey Sëriñ Tuubaa wax wax joojee manam da ngay sanni ci wax mom li litteem yëpp mom moy liggéey serigne sëriñ Tuubaa kon mom mu top ci ginaaw jëmul am dara bu dara ja bu wutul dara ñàpp ci ginaaw rek ci ginaaw ginnaaw sëriñ Bassirou Sarr ñaam sëriñ Tuubaa ci la am sañ-sañi woote màgg ci biir këram waaye sëriñ ci sa bi ni dund ñëw ko woon ndax ak taalibe ginaaw nak bi bu sa la ko te man sama jaar wacc na dañuy dañuy tëj ku jot. toppatoo kañ dina tàmbalee woote màggal ci biir kër yi. am na jikko a xamante ne da koo doon ci juróom-doomu texe ba di Cheikh Saliou Mbacké ndax muy benn mbir rek bëgg bi ñu xam ne bëgg na ko ndaw ñi ndaw ñi xoolal bi si nekk ñëpp mën naa taalibe bi ci ëpp ay ndaw rek ba leen di jël ay tuutaat lañu man de mën naa ne bu ma ànd ak moom. mu Moussa Kébé 15 laa gën a yàgg ci laa jégalu ci moom ci Touba Xatama waaye mën naa lu jiitu ma jégalu ci moom mënoon naa ko lool taxoon naa ko lool ndax damaa dama mën naa damaa xam ne gis rek gis nga bu suñu kër bëgguñu lool di ñu woo si tam di dox loolu ay yéen ñu koy ñu koy dox mu ñuy taf ci boor te noonu la def ci taaj yi nga xamante ne nii ñoo taxawu kër yi. Mame Saliou yaa di sunu baay. wékkeeg nana la ko mam Salim Sarr yaa di sunu baay xanaa dañ koy tënk rek ndax li naan li tuuti nag bi xaju man li ma xam wax dong lay wax te kenn ku ci nekk si mbokk taal bi man ngaa wax ëpp li ma wax li jàll si rek maam bëgg bëgg ndaw ñi ñi nga xam mbokk taal bi jege Ndakaaru ak kër Mbay Faal ak parcelle ak fépp tey jii taxaw kër gi mën naa ne ñoom ñëpp bi ñu ànd ak ñoom ay tutànk la ñu leen toll man muy ñew diko ziar ci medina bu fa daan ñew tout tank yi ma daan gis ñu tax ko lool def jégué ko lool mu leen di jege miral bopam tay ji bi ma ñëwee gis leen ñu wattu kër gi ni at mu jëk ba dama daanu ndax man sëñ bi li la gisoon man di yeen li ngeen def man ngeen ko defal ndax man naa ne bi ñu and ak mom metti won na lool wéetoon na lool waye tay ji ni alhamdulilah rabbil alamin ndax léegi rek mu ngi koy nettali bañ nekkee ca kër maam Serigne Sarr te néegu ñax ba demutoon nii ba mu ñëwee lan Sarr ci ëtt la ëttub see Bassirou Sarr tamit demutoon nii waaye Sëñ Tuubaa moom dañ ne aw ma tànk ginnaaw tànk kanam laa am ku ma lebal ker ma fay la guddi ku ma defal loo mënut ma defal la jom mooy firnde jii nii kon dañuy tënk rek ndax xam naa ne xaju fi xanaa di ko ñaanal rek Sarr yaram mu yàgg fa lool te ànd ak wér yàgg fi lool ba ñun li ñu yéene defal ko ko ñu defal ko ko te mu fekkee lépp mu yàgg fi lool te ànd ak wér ànd kook njaboot gi di siyaar bu baax suñu sëriñ suñu jëwriñ Baye Sëriñ Sarr moom tamit di ku baax ku oyof xam ne mi ngi xeeñtu tànki waajuram di ko ñaanal di ko ñaanal suñu yaay yi nekk ci kër gi yàlla ñu am jàmm yàlla ñu am tawféex kër gi yàlla na fi sutura sax dàkk ak xéewal bàkk Serigne Touba bàkk si Ibrahima Sarr Ndiaye jërëjëf lanu yaakaar fi yow yaa di ki am sagul sagul lee di këru sagul waay sagu nga yow yaa am sagul ndam yaa di li sagul waay sagu teraanga sagul sagul wane si kii jox sagul waay sagu nga sa nga am sagul sagul ci ci sa sagul waay sagu nga fi ne woon sagul sagul te yaa fi sagul waay sagu nga xeebu nga woon sagul sagul mu xëy dara jaal bu jëreew sagul sagul joxel te bañ sew sagul waay sagul wa solal sa ñetti xoo sagul sagul di way di wogo suuf sagul waay sagul wa feccal ba nga ni saay sagul sagul yàlla di kii la may sagul waay sagul wa ku amul ku la may wëril jël kay may ndax du jeexal sang be mbàkke yaa yore mbir yee